ñun ñu ngi seen ginnaaw kon da ngay saluer parti Pastef parce que tey mën na maa wax ne Ousmane Sonko bi muy fal da ngay wax ne xaaju ministère yi bokkuñu Pastef xaaj bi bokk Pastef est-ce que léegi daf ne waaw léegi nag falu naa euh, Basirou kon léegi comme fal nañ xaaj boo xam ne bokkuñu Pastef léegi nag li ci des nag nañ ko ñamal suñu waa kër. daal di ñëw ci Pastef na léegi indil naa leen treize ministres waa léegi nag kon nañ xool nuñ ko séddoowee déedéet biir Pastef ku jëloon benn kayit tey def sondage ci sénégalais yi ne leen ministre de la jeunesse ak sport dañ koy boole kan ngeen foog ne mën na koo yore sénégalais yëpp danañ la wax jox ko ngañ dem ba Touré ñëpp parce que moo jiite GPS am na xam-xam te jeune la jox ko jox ko jeunesse ak espoir pourtant am na beneen sénégalais boo xam ne parti Pastef la bokk tudd Khady Diène xam-xamam yëpp ak carrière am yëpp mu def ko ci espoir Ousmane Sonko day romb Ngagne Demba Touré jox ko kii nga xam ne jàpp na ne xam-xamam am na yaakaar ci ne moo ci gën a màcc bu ngañ Demba mun mënu ko am doxalal boo demee Bambey tey dañ koo perte local non dañ koo gagné local laay wax gagné ko législatif muy Aïda Mbodj moo fa nekk nekk allié dafa gañe local gagné législatif gagné présidentiel xanaa kon bu ñu nee ministère nag day dugg day dugg nag léegi mbay ñëpp Ali boo ne woon ministère buy dugg Bambey ñu ne Aïda Mbodj pourtant docteur Aline Dione nga jël mi nga xam ne wóor na ma ne moom bu doon Aline Dione donc Pastef du gagné bureau de moom foofu parce que moom technicien la xamul politique jàng la xam doonte Pastef la bokk ci cadre yi tey boo demee jurbel nga fekk fa benn sénégalais bu ñuy wax Matar Sène dégg naa ñaari yoon Ousmane ko wax ne Matar Sène moo ma convaincre pour ma ñëw ci Pastef man boo demee ci carte d'identité yi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ñoo déclaré Pastef da nga ca fekk turu Matar Sène ci ministre de l'intérieur tey kooku ba Pastef di sosu moo ko sos nekk njaarim sonn fa lu nekk bi ndombal tànk ñëwee njaarim pourtant dañu koo jël jox ko Balla Moussa Fofana ndax lan Balla Moussa Fofana dafa am lu ñu bind mook Ousmane Sonko ñu war koo doxal Ousmane Sonko ne au lieu may jël koo xam ne moom ci parti bi dafa légal am na lu maanaam am na légitimité ci parti bi mais li ma bëgg a doxal ci ministère bi la Moussa Fofana moo ko ko gën a xam kon moom laa koy jox te loolu koo ko defoon cim réew da nga leen dégg pourtant Makhtar seen mooy mooy wër naan pourtant booy bi jàmbaar la moom lañ ko waroon a jox parce que lim bind la man garaawul loolu mooy Pastef ana tey jii ki nga xam ne moo dugal parti Pastef Mbour ñu di ko wax docteur Diayti première cellule bi am Mbour docteur Diayti moo ko installé bi ñu faloo ak tey jii wóor na ma ne gisul Jomaay déggu ko gisul Sonko déggu ko te faluñu ko te wóor na ma ne fu mu toog ma ngay défendre ñii fi nekk te bu continuer woon nii ba cinq ba dix ans nii la koy continuer ana tey jii ku mel ne Sadiq Top bi ñuy annoncé que ne Diomaye président moom lañ tànn mu nekk suñu candidat Sadiq Top moo ko annoncé pourtant bi ñu faloo ak tey jii est-ce que gis ngeen lenn benn privilège boo xamante ne jëlee na ko ci biir nguur gi pourtant démb rek seen ngeen ko ci télé yi di jamono ma ngay wër fu nekk di défendre ñi fi nekk lii dama bëgg sénégalais yi xam ne ña fondé woon Amérique. àgguñu woon fii ci bëggante saxaabatul kiraam bi yonent bi sallallahu alayhi wa bëggee taxawal lislaam demul jëli ay malaaka demul jëli ay jinne dafa jël ay nit ay moroomam ay mbokkam mu def ci ñoom pas-pas def ci ñoom ngëm-ngëm tabax ci ñoom diine lislaam mu dox pas-pas boobu nekk ci saxaaba parce que nag su yoon Ousmane Sonko bu waxee ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy sama référence kon nag jàpp naa ne ay militant saxaaba yee war a nekk seen référence lii ma wax nii tey su ma ko waxoon te dindi tur yi xamoo leen tur yi da ngeen ne lii ab yonantoo ko def ak i saxaaba te nag Sénégal yàgg na fi jub yàgg na fi baax yàgg na fi dëggu yàgg na fi waaye ci pàcc politique na politique moom jub wax dëgg yooyu amu fi woon Ousmane Sonko moo andi ci Sénégal di laaj am réew jotoo ci nga jox ko koo xam ne bokk leen ndey bokku leen bàyyi bokku leen lu làng bokku leen dara ngeen bokk gëm-gëm rek nga ne ko am jëlal loolu xamuñ ko woon ci senegal Sénégal Bassirou Diomaye fay moo jot nguur sénégalais liñ xamoon mooy bu jotee nguur wane gannaaw bi mu jotee ci nguur gi jël kàddu yoo xam ne daawu ko seedeel Sonko sax ba mu jotagut ci nguur gi mu di ko ko seedeel kon ñaar ñii wane nañ ci Sénégal loo xam ne àggul woon ci ëttu politique bi ci diina ji la amoon ak kër sëriñ sa ñoom ñoo ko indi ci ëttu politique bi seeni militant tamit ñoo indi ci ëttu politique bi dem kaso dem bàmmeel ñàkk sa alal mu jot ñu xañ la ko nga tàccu ki la ko xañ ne ko nañ continuer parce que lan don de soi pour la patrie la ñu Ousmane ko woo te ci lañ ko wuy si te loolu noonu dëgg la ci ñun bokkut ak Macky mi nga xam ne dafa waroon Sénégal ne leen la parti la pat la la patrie avant la partie ñu fal ko jox ko Sénégal mu daan ne mu daan ne la famille les amis le parti la patrie waaw Macky Sall moom ku ne xam na ne fi mu tegoon fameem tegu fa woon sénégalais yi fi mu tegoon ay xaritam ñoom farbaat ñooñu tegu fa woon sénégalais yi fi tegoon ñoom ab Abdou mbaw mii dégg nga ak ak gaayam yi nga xam ne parti bi lañ bokk tegu fa woon sénégalais yi après sénégalais yi doog a ñëw loolu moo nekkoon Sénégal buñ kon la parti avant la patrie Macky Sall la ko wax mais Diomaye fay moo ko jëfe te loolu mooy dëgg loolu suñ ci ñëwee kon wax naa li tax cent jours sans transhumance ñu ñëw ci téeméeri fan yoo xam ne am nañ ay ministre ñëpp def nañ déclaration patrimoine DC yëpp def nañ déclaration patrimoine 1960 ak tey wax leen ma benn gouvernement bu Sénégal ma sa formé ñëpp def lañ leen wax te kenn soññiwu leen mosul am ñu jóge ci amul benn ministre tey boo xam ne da ngaa def li ñuy wax cumul cumul de fonction amul ministre yëpp bàyyi nañ seeni poste ministère seen poste maire wala poste ba ñu yoroon feneen ñëw nekk ministre kese Sénégal yàgg amul benn gouvernement laa wax nag maa ko défier bu masa a formé wu Sénégal te ña nekk amuñu ay yeneen poste maire doog a nekk ministre ñi nekk ministre duñ sàcc dem di pour jéem a nekk maire c'est la première fois ñu am loolu kon loolu nañ ko boole ci bilan immatériel bi parce que am na déjà ak témoin loolu moom bu doon ab saxaar buy dawa départ na dem na yàgg na kooku moom dem na léegi nag nañ xool ministres yi nan lañ mën a wóoloo Ousmane Sonko ba mu ne bàyyi leen seen postu ministre seen postu maire te ñëw nekk ministre kese ñu doyloo ko bàyyi seen maire ñëw nekk ministre kese wóor ne yàlla laa wax ab Ablaye Seydou Sow wala Alioune Ndoye mii bu leen Macky Sall waxoon bàyyi leen seen maire bi te ñëw ma def la ministre kum njëkk laaj nga ne ko lankal da lay nax boo bàyyi mairie bi boo paree bu la defee ministre war la waaw te boo bàyyee sa maire yi ñëw di ànd makki Macky mu def la ministre risque yi lay mën a dàqalu daa bari parce que boo xuloog Marème mu dàq la boo far Farba mu dàq la bu la santeen njublang boo muy tuut boo ko defut mu dàq la après boo bu élection ñëwee boo pertee sa gox ñu dàq la mais bu dee Ousmane Sonko di nga xam ne Marème fay mooy xulool foofa mu lay dàq amu fa am Farba Ngom ca wet ga amu fa te wóor na la la perte élection ak gagné élection bàyyi wala ci ministère bi li la fi bàyyi mooy boo dee jubal tey liggéey mën nga fee yàgg loolu moo tax kóolute bi nga xam ne ku mel na Serigne Gueye jóob tey Ousmane ko defu ko defu ko maire te pourtant bàyyiloo na ko maire mu bàyyi ko loolu nañ ko boole ci bilan immatériel bi nga xam ne Sénégal xamul woon loolu Sénégal xamu ko woon suñ ci jógee waaw loolu kon day bokk ci bilan yi nga xamante ne mënees na ko boole ci bilan immatériel bilan immatériel ba léegi mooy Bougane Gueye day toog di wax ci Ousmane Sonko ak Jomaay jàpp ne wax ji ñàng na bam ne nama ma procureur woo ma ne ko bugaan procureur du la woo li ngay wax Macky Sall mu yóbbu la rëbës boo ko waxee joomaay da lay yóbbu RTS <laughs> waaw li ngay wax jom Macky Sall ngay dem rëbës kooku moom moom ngay wax jomaay jomaay yóbbu la RTS loolu nañ ko boole ci bilan 100 jours yi donte bugaan nit ku maal honnête la moom bëgguma woon sax wax ci waxam waaye comme tudd naa ko ci baax na parce que man mënumaa nangu yow bugaan géey nga toog daa di wax ne am na benn commerçant ca Touba dafa dem Nicaragua doonte Nicaragua ba muy tëj kenn jaaratu fa Macky Sall la fi nekk loolu moom du dëgg waaye nee na xam na benn commerçant bu jógee Touba dem Nicaragua kon san jours jomaa yi baaxul xam na benn commerçant bu nekk Sandaga dem na Chine kon cent jours jomaa yi baaxul waaye Pape Alé indil na la RTS ca sa déclaration bi ngay def nga ne waaw Pape Alé danaa ko laay gërëm daal koy gërëm ci sa kii dem ca page Facebook gërëm Pape Alé waaye yow léegi benn commerçant ca Touba bu demee Nicaragua Macky Diomaye nga koy xase te yow léegi micro RTS ñëw na sa sa kii doo ko taggee Diomaye loolu mooy mal honnête moom kay waroon naa wax ne 100 jours yii waay waay am na benn changement bu fi am bu ma xamul woon mooy man Bougane maa ngi toog di def declaration RTS ñëw na te man nag doonte loolu ànduma ci ndax moom Pape Alé laay waxal parce que démocratie nag mënut wër la jur anarchie parce que am na ko ñuy wax majj majj de defe naa ngeen koy wax ah donte nag moom maa ngi leen ñaan ngeen ngeen bàyyi ko xel di ko partager buy woote ngeen koy wuy ji parce que dafa def sacrifice bu rëy mooy jaay sa kër jënd ci oto jënd ci costume jël ci garde corps fas yéene opposé wu loolu sacrifice la waaw kon na ngeen ko dimbali parce que xam naa da cee fàttee sangoo bay ren waaw mais moom ak ak ak ak buugaan wuruñoo def ay conférence de presse maanaam RTS di fa ñëw loolu moom du yoon parce que nag Pape bu fekkente ne buugaan bu defee nga indi RTS bu majj majj de defee nga indi RTS kon nag bu fuuta tàmpi def na nga indi RTS parce que nag ñoo tolloo daraja ci réew mi ay njiitu mouvement lañu rek non nañ waxante dëgg rek lan moo wuutale Bougane ak Fouta Tampi Bougane du ancien du ancien candidat du ancien maire du ancien député du ancien ministre maanaam du ancien dara moom daal maa jiite mouvement rek mais Fouta Tampi am na mouvement maa ngi koy ñaawlu parce que rafet na nag parce que démocratie la mën nañ koo rafetlu parce que ci 100 jours yi la bokk ci bilan bi la bokk waaye nag man de man de bu ma yoroon RTS man bu bu bu Barthélémy wootee ma dem bu Khalifa wootee ma dem bu Thierno Alassane Sall wootee ma dem bu Mimi Touré wootee ma dem parce que ancien premier ministre la mais mais Bougane loolu du yoon loolu du yoon wax dëgg yàlla <coughs> non ancien rakale mooy la mais yow xamoo ne kii ci rakale la bokk nu salaam jàll salaam dañ ko rakale ah oui amoon naa yéene yi amoon naa yéene dem Màkka daa tax béyee avion yi fay loolu du yoon léegi ñu ñëwaat ci beneen boo xam ne bilan la te ci 100 jours yi lay bokk mooy président de la république damaa wax sànq 100 jours damaa wax sànq 100 jours sans transhumance mais 100 jours sans média étranger loolu itam xamuñu ko woon président de la république buñ fal mu def 100 jours amul benn média étranger bu ko dékk micro muy expliquer ay étranger qui que ce soit loolu mësul am mësul am kon tey bu loolu